Alla Ndiaye maa ngi lay nuyu. Mbour maa ngi lay fay. tey ñu ñëw ci daral bi tey fekk fi ay xar yu doy waar xar yu dégg naa ay xaru ay millions la. xar yi ay xar yu doy la ay laadum la ay azawaat waaw ay xar yu doy waar xaru 1 million 500 xaru 2 3 am na xaru ba cent mille cent cinquante mille deux cent mille trois cent mille ba jëm kaw xar daal xar boo bëgg catégorie boo am na fi. mais est-ce que xaru ay millions instant bii ak fi réew mi toll jàngoro ji ñuy wax corona coronavirus dugg ci réew mi nit ñi ne dëkk bi amul xaalis yenn poste de liggéey ñu supprimer ñu ko ñenn ñi amatuñu salaire ba noppi est-ce que xaru millions yooyu mu ngi. bien sûr xaru millions sax ñoo gën a jar ka xaru ndaw yu millions yi ñoo gën a gaaw jar ka xar yu ndaw yi. mais loolu lan moo ko waral. ah li ko waral mooy ñi ko am di ko mën ñu ngi koy def ñi ko amul nag dul def. Mhm. mais def ko géniteur. non am ñoo xam ne dañ ko jënd pour def ko géniteur am na ne dañ ko jënd pour tabaskee ko waaw. mais ci bi daa euh, période bi daanaka ñu ko jënd ñëpp pour tabaski lañ koy doyee. waaw pour ñu bi moom ñu ko jënd ñëpp pour tabaski lañ koy doyee. que des fois jënd xarum deux million cinq cent. tabaski est-ce war na toll foofu. non tabasi bien sûr war na toll foofu parce que doole yemul yàlla moom bind te yemalewul ñi am xaru 100000 jënd xaru 100000 ñi am xaru million jënd xaru million waaw. Euh, bi affaire yi commencé ba tey ñaata xaru 2 millions 5 nga fi jaagu. non bari na mënuma ko xayma quoi waaw. mais jàpp ngeen ne xar yi dana jeex. incha allah rabbi day jeex sax. ëppoon na lii quoi. ëppoon na lii bien sûr livré nañ xar yu bari moom macha allah. mais lan ngay wax borom kër yi ci veille bi euh, ku ci nekk bañ def loo munul wak yu mel noonu daal. non di leen ñaax di leen wax borom kër yi di leen wax def loo mën wax loo mën soo tëddee da ngay nelaw mais bu ko mënoo yor cent bëgg xaru cinq cent jarul lebi day métti ci yow. defal li nga mën rek ala kulaa tafaki gi benn fan la day jàll.